liggéeyub sëñ Touba bii. ba liggéeyub sëñ Touba bii. sëñ Touba ay tabax ñoru ko nee na sëñ Touba ay tabax ñoru ko de. ay wata ñoru ko de. ay wata ñoru ko de. soowee bindeef yi rek ko ñor. soowee rek moo ko ñor. te lii nag da cee bokk. te lii nag da cee bokk. ndax yàq gi bari na. ndax yàq gi bari na. pom yi bari na. pom yi bari na. kàccoor gi bari na. kàccoor gi bari na. wax ju bon ji bari wax ju bon ji bari na. te lépp nag. te lépp nag. da ko war a effacer. da ngeen war a effacer. ba du ba du agsi. ndax dañ ne. ndax dañ ne. koo topp fa ngeen jëm daa soriwut. lu ne ñu koy wax sëñ Touba. lu ne ñu ngi koy wax sëñ Touba. lu ne ñu ngi koy wax njabootu sëñ Touba. lu ne ñu ngi koy wax njabootu sëñ Touba. day mel ne sax daa amatul xanaa. day mel ne sax xanaa taalibe daa amatul. ndax murit yi njëkk ji dañ daa fajal seen bopp. waaye léegi kenn faj kenn du faj dañ naan damay tàggu sëñ bi te ak njaaxum kenn du ko tàggoo. wala ñu naan réew mi réewum nangam nangam la xanaa daa jëmee côté. xanaa nangam nangam daa jëmee côté. sëtu sëñ Basiru bi ñu doon door bërki dem fu ñu sëñ Basiru bi ñu doon bër doon ko teg. njabootu sëñ Basiru gañ doon daaw ga. njabootu ñoo indi karatéka ko teg. njabootu sëñ Basiru gañ jàppoon daaw ca koor ga. ñooña mujj doomi sëñ Siidi la woon. doomi sëñ Siidi la woon. ak doomi sëñ Muntaxa. ak doomi police yi leen bëggoon a sonal. police yi ñoo leen bëggoon a sonal. waaye yàlla ñoo ñu def ñu jàng xeex. waaye ñoo yàlla dogal ñoom ñu jàng xeex. ba xaw a duuma ñooñu ñu ba xaw a duuma ñooñu ñu daw. jàkkaay njare ji lu fa xewoon. jàkkaay njare kon yëf yi day nag day bëgg a nuru loo xam ne kenn du xam lu mu doon. bu ñu muñee nag ba sës ci miir. bu nu muñee nag ba sës ci miir. Ah, la fay sës doo nga fay sës de. la fay sës doo nga fay sës nag. te kenn du ci man dara boobaa. te kenn du ci man dara bu boobaa. taalibe sëñ Tuubaa yi bari nañ. taalibe sëñ Tuubaa yi bari nañ. te seen pas te seen pas-pas dëgër na. leen gënal seen te seen tu sëñ Tuubaa leen gënal seen ndey. gënal leen seen baay. gënal leen seen gënal leen foo doxe foo doxe ba fekk ñuy wax ci sëñ bi lu jaaduwut ba fekk ñuy wax ci sëñ bi lu jaaduwut wala ñu koy teg ci jëmam ji lu jaaduwut wala ñu koy teg ci jëmam ji ci lu jaaduwut da ngaa war a nekk ca la koy saafara ba lu la cay fekk fekk la ca loolu mooy solution bi loolu mooy bi nun nag noo ngi toog di déglu nguur nun nag noo ngi toog di diisoo ak nguur di porter plainte di porter plainte daawut jëriñ dara te daawut jëriñ dara waaye bu tey bii waaye bu tey bii bu jëriñu dara bu jëriñu dara ah, ah. dana garaaw de dana garaaw bii ñu porté. nee na bii ñu porté Cheikh Omar Diagne bu fekkee ne yàlla dogal na jëriñu dara dana garaaw de. ndax taalibe yi kenn mën leen a téye. ndax taalibe yi kenn mën leen a téye. ak seen pas-pas sëñ Tuubaa. loolu nag ab junj la boo xam ne. na ko ñëpp déggandoo. na ko ñëpp déggandoo. sëñ Bas. sëñ Bas. loolu sab liggéey la. loolu liggéey la. dañoo wax ne. dañoo wax ne. ci kii bil hikma wal maw'izatul hasana lañ ko la la wal maw'izatul lay doxee. ci loolu nga nekk. ci loolu nga nekk. wóor na ma yow. wóor na ma ne yow. doo wax lu jaaduwut. doo wax lu jaaduwut. doo ko def doo ko def. waaye mënoo téye taalibe yi. waaye mënoo téye taalibe yi. mënuma koo téye. mënuma koo téye ndax seen pas ba sëñ Tuubaa. loolu laa bëggoon a leeralaale. loolu laa bëggoon a leeralaale. danaa la sant. gën laa gërëm. gën laa ñaanal.